sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare sëñ Aziz sama may sunu mbër baare yow lanu yaakaar fii الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فارقت إبليس والجميع المفاسد wa bismillahi rahmani rahimi laazamtu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama wa jami almasali wala xawla wala quwata ila billahi ali lazimi jawartullah bi kitabihi ila duxuli aljanna jawartu bil furxaani rabbiyal muyin malaktu nafsiya wa saxsaxtu layin axasu min dunya wa zaadi lil jinaan wan xaada lii hawa wali safal janaan walaaniyal أبرار في الهرايا وانخاد لي بلنتين خرايا رافحني إلى الجنان جيم ولي سواي سوس الرجيم تسيان اللعن والفجار كن بدي العالمين الجاري أكرمني بدي بالكتاب وسانني عن جالب العتاب لم ينهني duxulil janna xayru bu saaraati ali silminna lam yanuni sajrun wala wa muri ila jinaanaydu axfaaliya axfaaliya siran nasunallahu huban wa laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allah huban wa laa ilaha illa allahu hadaani allahu wa innahu albadi wa xaadani loo bi anwaai albadi baraani alxaaliqu min siwaahu wa xaadani man laa yura sarwaahu kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu walillahi bi sakantu tusianil akdaari wal mafaasidi salaamati min jaalibi للفاسد أكرمني الله بذكري وما يختاره وليقاد له وما باها بي الله الكرام الخرى وببقاء النبي يسرى هبات ذي الجلال والإكرام لقلد المراقب الكرام إلي يقاد لهما لم يكن wala yakunu abadan mumkini lastu asukku abadan fi kawni jaaral badia jaban lil kawni inna alladi min al ilahi wasu habani kawni wa fi fusu dalani allahu ala allahi bila taqarrurin wa humri taqabbala ولا تعملوا سادي مسمني وسبلا كسادي وخاني الباقي بي سبورا تجارتي لدي لن تبورا لم ينوني ما باني الله فلا ولا إله إلا الله يقود لي بأنجاي سمني من كان وليسفى زمني جاورت rabbi bi lisaanil harabi bila nihiyaatin wataabat xorabi nazaali nuurul islaami wal kitaab asmaana xidmati lada ahlil kitaab nazaali nuurul islaami wal kitaab asmaana xidmati lada ahlil kitaab tasilu ma sabata lil mustafay ana yamini anasan wa mirfaqi hadaani allahu wa sahsan layin ila sahmi rabba salmuyin ba sëñ baara ku la way am ndam baari sang baaray madu laamin ahmadu laamin sëñ baara ku la way am ndam baari baaray madu laamin ahmadu laamin sëñ baara ku la way am ndam baari sa sang baaray madu laamin ahmadu sëñ aji sama may sunu mbër baari yow lanu yaakaar fii yow lanu yaakaar yow lanu yaakaar abadan baari yow lanu yaakaar fii yow lanu Seex Sidil Muxtaar am ndaanam baari saaka sang baaraay Madu Lamin Madu Lamin sëñ aji sama may sunu mbër baare ku sopp sëñ baara jugal màggal ko kooku bambay baayam baari saxaaya mbàkke yal na yàlla guddal saw fan nun dag noo féete fépp dun tay di ko wax Señal ñadi sama may sunu mbër baari saxaaya sang baay ma du laamil ma du laamil baara ñadi sama may sunu mbër baari saxaaya yow lanu yaakaar fii